billahi min asheytaani irajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi waxdahu wasalaatu wasalaamu ala man la nabiya baadahu wa akbaru ridwaani min allahi taala ala abdillahi wa xadimi rasulihi maulana cheikhul xadim bokki jullit yi fi teew yëpp bokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu maag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 nam ko wax woon de mën mënewuma ko na waaye ku ne xam na pëstéefub sëriñ bi sëriñ Touba ku xam na yéeneem ci taalibe sëriñ Touba yi ku ne xam ne yéeneem ci bokkam yi bokkal sëriñ Touba ku ne xam ne yéeneem ji mu am ci bokki jullitam yi waaye ku xam ne yéene ji mu am ci euh, kilifa yi diine yi nga xam ñoom ñoom la liggéey bu bi kon nag ñaan ci barkeb sëriñ Touba lépp lum mu yéene yéene ko ñoo ñi ma wax yàlla na ko yàlla def na ko bëggee te ñun ñëpp ñu fekke ko